inna lillahi wa inna ilayhi rajiun la ñuy daal di wax ginnaaw bi nga xamee ne senegal daal nañu ñàkk boroom xam-xam daal nañu ñàkk itam nitug yàlla goo xam ne yàgg naa liggéeyal diine ci toolub lislaam ñu naan ko El Hadji Moustapha moom mi nag di El Hadji Moustapha moo jiite woon mbooleem imam ak ulama yu nekk fii ci Sénégal mu nekk nag nit ku ñu ràññetle woon loolu ci liggéeyal alquran ak di ko defal ay tafasir xam-xam ak li ci aju moom nag ci mbirum fiq mun muy jurisprudence nekkoon na ku ci géeju woon loolu moom it imam Moustapha Guèye waaye jàngal ci ay doomi aadama ba far sax ñu joxoon ko grade bu rëy rëy ci yoon mi nga xam ne moo di yoonu maam Cheikh Ibrahima Niass Kaolack nga xam ne moom alhaaji Moustapha Guèye am na ci wàll wàllu rëy rëy moom alhaaji Moustapha Guèye moomule moo daal di dëddu àdduna ci France bi nga xam ne fa nekkoon ci la daal di génn àdduna nekk nag dëj woo xam ne jamono jile ci la Sénégal nekk ginnaaw bi ñu ko ñàkkee moom boroom xam-xam bile Sénégal nag ñàkk na boroom xam-xam bu géeju woon lool ci mbirum fiq waaye géeju loolu itam ci mbirum alquran defar ci ay doomi aadama ci ay daaraam ak ci peggu këram googule ba ci sax jàkka ji nga xam ne jot nañu ko tabax duppee ko sax jumaay Moustapha Guèye loolu yëpp di ay màndarga yoo xam ne mënees na ko jàpp ci moom ne nituk yàlla tigi moom la senegaal ñàkk ni ki tey jile ci guddik talaata jile ñi wéy di ko ñaanal taw suñu boroom yàlla na ko fekk fa mu jëm waaye yàlla teg loxo ci njabootam gile Feeling Dakar TV ci sama kàddu ñu yëkkati ay njaal di ko jébbal njabootam gile waaye itam di leen mastawu ci bile tiis nga xam ne moo neex yàlla suñu boroom del déglu del xool